mbokki julit yi bu ñu ne seen xel dem ci nafila tay la ben lu gudd ci weeru koor ñu fësee ne ci julli ñaari rakka rakka bu ci nekk fatiha ben yoon sootu ikhlas fukki yoon ak ñaar sëriñ bi neena na képp ku ko julli dana mel ku julli junni rakka ci makkamatul ibrahima junni rakka ca jakkay makka saraxe junni dërëm lal junni yu xiif te bu ñaanee des na ko nangu dina mel ni itam ku jox ndagu xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa yépp te bu faatoo it ñu boole ko ci ñu dee ci jihaat te des na ko musal ci mititu dee te bàmmeelam des na ko ca defal mu bokk ci dara aljana ya te bu dekkee dina ànd ak leer gu tolni jant bi te dana tàbbi aljana te deesu ko xisaab te sa mboolem yonent ya lay bokk ëllëg képp ku ci bëgg am lu la leer demal xool téere Sëriñ Chouhaïbou Mbacké boobu di xool